asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV di am mbégte saa su defal leen vidéo mbokk yi maa ngi gis seeni commentaire franchement c'est intéressant débat jur ku nekk man si jëriñu muy man muy sama mar donc maa ni si jaay jëfal bu baax a baax a baax mbokk yi nag te dañu wax si Hervé Renard Evelina nag gis ngeen ne fi Afrique jël na fi ñaari Coupe d'Afrique ça soit avec Zambie ak Côte d'Ivoire wax naa nag ci xalaatam gis ngeen Coupe d'Afrique nag un mois moo si des maanaam le 9 décembre 9 janvier la war door mun na wax ne xalaatam à chaque chaque fois li muy wax rek Sénégal favori la non pour man Sénégal fi mu gën a baaxee mooy li muy wax rek Simone Simone ne pour sa équipe bax mom li ko gënal moy que ñu ne ko yow do favori.

ñi amul compétition ku nekk wax na xalaatam et franchement c'est intéressant ku nekk si jëriñu gis naa pour ñi xam ne ne blessure Ismaël Sarr ak ñeneen ak ñu je pense que Ismaël Sarr dina ñëw quoi man je pense que un mois bi ñu wax dina mën wër même si ce serait dina compliqué quoi peut-être premier match moy compliqué pour pour pour kii Ismaël Sarr concernant Kalidou Koulibaly ci laa gën a am confiance vu que docteur bu Napoli li mu wax tamit xam voilà xam nga fa wax lu leer nañ donc euh, man japp na ne pourquoi pas mom tamit dina mën jouer en tout cas lii li li ngeen c'est intéressant voilà mbokk yi nag yéen ci commentaire yi dam leen poser question loo leen xalaat si si Hervé Renard li mu wax <laughs> nee na franchement war nañ mën a jël coupe xam naa ne sax ñëpp gëm ngeen que am na ñu ko gëmul ne par rapport ak euh, ñii ne défense bi secteur yi quoi défense milieu attaque am na koo gis rek am na fu mu xool rek na non fii problème na ñii ne euh, coach bi la am na ku nekk rek dina wax xalaatam quoi mbokk yi moo nekkoon vidéo dina wax ma ngeen dem suñu compte Instagram Facebook Twitter Euh, TikTok boo leen tàppee seen football TV di ngeen ñu gis incha allah maa leen di jaajëfal di wax ba beneen su seen football TV. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen.